Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. waaw salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu sénégalais yëpp ku ci nekk di la ñaanal jàmm ak salaam may wax ni am na loo xamante ne ni sénégalais yi xamuñu ko ba tey te mu ngi nekk affaire boo xam ne mu ngi ci suuf. muy affaire boo xamante diggante Abdoulaye Wade la ak Youssou Ndour yéen a ngi xool toujours politique bi nga xam ne moo ngi daw ci entre Macky Sall ak opposant yi bon mu nekk benn affaire boo xam ne mu ngi taxaw suñu kanam ñun ñëpp ñu koy gis chaque jour muy affaire information bi léeg-léeg ñu dugal la ci secteur pétrolier bi dugal la ci génn mais la grande situation xamu leen ko le grand problème waxu leen ci mais man daa am benn question boo xamante ni moom laay laaj ñi demoon wax ak sëñ Mountakha ci diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall xanaa ñooñu ñoom xanaa ñoom nekkuñu fi ci diggante Abdoulaye Wade ak Youssou Ndour ñooñu xanaa xanaa ñoom bëgguñu lu lu luy jàmm ci réew mi mais jàpp ni. Ablaye Wade bi fi ñëwee di bëgg a incarner troisième mandat mais Youssou Ndour bokk na ci ñi ko def ñett du jàll ba jour boobu ñun ñoo ko rawale ci oto Idrissa Seck mu bokk ci manifestation ñu koy sànni ay lacrymogène muy daw ba Sénégal am liberté ci jour boobu tey bu ngeen xoolee Youssou tamit ak Macky Sall gëj ngeen dégg lu mel ni ñoo ngi ànd gëj ngeen ko dégg. gën ngeen ko dégg parce que li ko waral mooy détail bi taxawoon ci deux mille deux mille euh, deux mille douze ba fii ñu yegg si tey jii gisu leen ci benn image bu reflété wu Youssou ak Ablaye Wade fu ñu toogee wala fu ñu détaillé benn rencontre moo ci am ci biir avion la am Ablaye Wade dafa dugg ci biir avion bi fekk fa Youssou Ndour ne ko le du Sénégal. nuyu ko ree Youssou Ndour jóg taxaw ne ko son excellence nuyu ko comme ni muy def mag ñëpp mais au fond loolu du réalité bi au fond du loolu mooy relation bi laay Wade ak Youssou Ndour ñoom ñoo yor politique gu Sénégal jamono bi may wax ak yéen te mun leen koo xam kañ ngeen koy comprendre bis bu ñu demee ba Macky di incarner troisième mandat ba pare Ablaye Wade bëgg tamit Karim ñëw pour yor réew mi. ba pare Youssou Ndour nekk fi ci position boo xam ne réew mi lu ci waay teg loxo am na ci droit teg ci loxo comme citoyen la comme ñëpp te tamit askanam ñor na ko mais détail boobu lu tax ñi nga xam ne ñoo jubale mu Mountakha ak Abdoulaye Wade mu ah, euh, Mountakha jubale ablay Wade ak ak Macky Sall mais ana ñooñu xanaa ñoom liiruñu diggante Abdoulaye Wade ak Youssou Ndour bés bu loolu amulee Abdoulaye Wade bés bu jubóowulee Youssou Ndour wóor na yàlla di ngeen gis politique bu ngeen mosul a gis senegal te dina am ay mbetteel ci wàllu waar wu ne fu ngeen mosul xalaat dina am parce que Ablaye Wade bëggul Youssou Ndour bëggu ko te suñu sañoon tey danañ jàpp Youssou Ndour daggate ko ruiné xoolal ruiné ko te loolu noonu mu ngi benn politique boo xamante ni suba Youssou Ndour day taxaw jàmmaarloog moom te du ko ci may du ko ci may dara yéen nag politique bi ngeen di liir liiragu leen ko. ñi jubóole sëñ euh, ñi juboole Ablaye Ablaye Wade ak ak ak ak Macky Sall nañu dem dox diggante Ablaye Wade ak Youssou Ndour wax ko sëñ Mountakha te ñoom ñaar ñëpp ay taalibe murit lañ lool lu jar a xoolaat la lu jar a xoolaat la nag tey dama leen doon wax ni li may suivre ci Sénégal du ngeen ci bàyyi xel mais dans l'avenir dina am woy bu ma génne bu leen di won ne man senegal rek a ma ñor te di ngeen gis. yàlla nañu yàlla defal jàmm ak xéewal jaa